maquillage Halloween bi interdit au moins de. xanaa au moins de 18 heureusement que tous les enfants sont à l'école. wala boog wala boog wala boog on découvre tout de suite celle qui fait peur depuis ce matin Mary Bey Diouf. What a bogus man! On découvre tout de suite. Mon amour, mais elle s'est transformée en chat ou tigre? En, en mousse. Aïssatou Pay Fall bon d'accord journaliste la ñoom journaliste yi amuñu xorom seen dara saful da ngay lewete dañ ku leen waxi ak li nga def ci émission bi tey c'est dommage pour eux voilà pas de liberté xamuñu ni apartheid jeex na depuis Euh, euh, ñu libéré libéré Nelson Mandela. <laughs> voilà donc puisqu'elle n'est pas libre c'est pas grave mais elle reste quand dans la mouvance Halloween l'autre c'est l'autre <laughs> bu ngeen gisoon tubéy ji sax dafa raglu comme caaya mais bon moom tamit mu ngi ci mouvance su Halloween Didi Damour ay da mais elle fait peur ah. ki nga xam ne nag. bu fekk jotee ba ñëpp def ci 10 pour cent moom 100 pour rek. sama waa ji Bercy 100 pour cent. yeewu leen 100 pour cent. yëfi togg 100 pour cent. animé léegi 100 pour cent. wax ci télé 100 pour cent. sañse 100 pour cent. buy défilé sax day waaxu. ndax pour cent sax day day waaxu ndax 100 pour cent. al fii.

bon ñun tamit on va se maquiller dans quelques minutes n'est-ce pas Exidex. ah oui donc ñun tamit ñu dem ci euh, mouvement su euh, Halloween bi ki nga xam ne nag foo ko gënal lépp <laughs> jàng na journalisme. pratiqué wul stage na ci télé ca France pratiqué wul mais quand il s'agit de fo da koy yenu quatre heures du matin la yow ko te bu doon contenu la 10 heures lay ñëw toog man de awma lu maa ngi nii lu sama yoon mais yoonam ma ngi ci Halloween on la découvre parce qu'elle prendra tout son temps pour se maquiller parce que tey la Halloween donc c'est une vieille fête euh, qui existe depuis très longtemps Irlande lu jógee jaar États-Unis euh, ay Canada euh, dëkk yu mag yëpp dañu koy célébrer oui tam xarit du seen fête donc ñoom du coup euh, du ñu feetu dara mais comme ñun Sénégal <laughs> voilà ñun dañuy jël cette fête feetu ko voilà Halloween et puis on va célébrer Euh, tout au long de cette émission il y a même des vidéos qu'on a prévues euh, dans Sunu Musique ca kanam ak Exidex euh, e on découvre Black Queen ak Make Up voilà may képp euh, Pape Cheikh la ñu andi tey parce que euh, xale yi nag laa bëgg Pape Chex tey ñu ne teel a dem tëddi <laughs> ndax nag mag ñee xew la. xale yi jàng nañu xale yi jàng nañu ñoom sax dañuy àll wi dégg xale yi ragaltuñu dara de. <laughs> pour yàlla dafa am jotu dafa bébé yu bees. <laughs> waaw yàlla amatul temps le temps est précieux chez lui maintenant. xale buy bëgg a judd rek maamam lay jël sànni. seetlu woo xale yi. ay mag yu dellu si. soo xale yi léegi. c'est vrai de. 4 ans ñu def sem 2 12 <laughs> ans ñu def bac nit ñi nii dañuy seetaan lépp ñun sax à l'époque on avait peur des films films films horreur horreur xaw ma d'horreur mm. bu ñu ko seetaanaan ba pare dañuy def kii bi ñaas bi ci kanam. mais xale yi léegi ñoo koy commandé ñoo ko seetaan. <laughs> alors Pape Cheikh Black Queen la ñu andi make up Black Queen la ñu andi tey make up alors pour wane euh, aspect qu'aujourd'hui je pense que ne mën nañu commencé dugg léegi ci fiction surtout cinéma bi ak vidéo yi. commencé def des vidéos yoo xamante ne xëy na américains yi loo commencé depuis les années 80 ñun léegi war nañu mën a commencé euh, di def ay film théâtre yeeg yooyu yëpp parce que on a de bons mais d'excellents Euh, d'excellentes euh, maquilleuses ou bien d'excellents maquilleurs donc au Sénégal. Voilà. C'est de l'art. Mmh. C'est de l'art et c'est de voilà l'art et c'est de l'or et puis à propos de make make-up euh, bi bi ngay wax on vous donne la possibilité ci suñu page Facebook dañu concours déguisement Halloween bi gën a rafet bi gën a bi gën a affreux parce que fête la boo xamante ni particularité mooy xëbalante <laughs> fête bee xuuxe fête <laughs> yooyu mënoo tiital kenn dama kii woo yow. man day bu ma ci duggee di ngeen xam ne lépp dëgg la. ayca xanaa xamul su ma doon toog yàmbaa dama koy bay. je te jure ah. yow may 200. may 200 man may 200 je te jure ah. man du ma jënd sax détail ay détail ak yooyu. tàllal sax paquet laay jënd. <laughs> je te donc vous nous envoyez vos photos euh, sur notre page Facebook euh, balaa balaa balaa émission bi di jeex bu fekkee def ngeen maquillage ou déguisement vos enfants n'hésitez pas mën ngeen ñu envoyer euh, seen ay photo ci page Facebook bu yeewu leen et puis on verra ban déguisement wala ban maquillage moo ci gën a affreux moo gën a raglu merci ñu partager ko et puis on verra ban cadeau la ñuy joxe cadeau bi nag dinañ ci teg benn balai sorcière oui at benn maquette magique waaye yokk ci waay nañ jël bale bale saane yi rek lay ci benn <laughs> xam nga saane bale mi dafa dëgg moo tax TFM toujours wu di sax ñuy nettoyé ay bale <laughs> ñuy jooy clim <laughs> ah laa jël ñoom Pierre amuñu lu ñu bale amu fi jeex na un mois awit ñuy ragg noot rek menace voilà 75 millions donc on découvre ça tout à l'heure ah, voilà li citrouille la baax na fii ba la 17 lépp baax na man am naa omo am naa saabu dara manqué wu la ndab yëpp set na te fii sedd na donc on découvre ça envoyez-nous vos photos euh, ak seen ay déguisement tey c'est Halloween on partage ça ci euh, écran bi euh, ci ci page Facebook bi ngeen ñu yónnee seen ay photos déguisement n'hésitez pas envoyez-nous tout ce que vous avez envie de nous envoyer Merry Beye Diouf oui même internet ak application yeeg yooyu tey Halloween waaw tey ah, moom ñëpp a ngi ci ñëpp tey moom ñëpp Halloween lañu ñëpp lañu loolu la ñuy loolu si lool la ñu nekk. parce que mhm. mooy euh, euh, li xew. mooy mhm. tendance bi. Mhm. mais bon ñun moom tey moom leneen lu ñu indi loo xamante ne tamit euh, ci tendance la. mu di le hashtag balance ton porc ou hashtag MeToo. donc bu ci kanamee wala léegi lañ ciy dugg. non ci kanam ci kanam ah, dañuy kii coming next ah d'accord coming ah! <laughs> donc. <laughs> <laughs> bu si kanamee donc on va en parler mu ne ko loo mën daale bu ci kanamee on va en parler <laughs> da ngaa dérété. donc désolé ci kanam on on découvre tout ça franchement. on découvre tout ça on n'a pas envie d'être sérieux. waaw du tout seen reportage yëpp mënoon ngeen ko denc ba journal bi daal. ah quand même mais bon on découvre quand même parce que c'est toujours intéressant euh, de faire ce que nous faisons utile. Euh, ak euh, agréable oui bien-être am na solo. Ouais, on oui. parle toujours de Halloween comme ni ñu koy waxee rek maquilleuse yi ak maquillage léegi nu mu toll ci seen benn ak fi xale yi toll njëkk kenn nañ ko xamee woon xaj na mais léegi imprégné wu ba gis nañ bu maquille bi am ci am ci terme boobu. tout le monde fait ça voilà. yow ban ban ban ban maquillage. nga def en fait man araignée laa. araignée dëgg la araignée mooy kii maan. Spider-Man ay Spider-Man ay Spider-Man arañe bu jigéen nu ñu koy woowee. arañe avec eux. arañe ñii avec eux. kaay xale yaa ngi lay seetaan. lañ ko. vous vous avez mis quoi dans vos yeux des lentilles. c'est des ah, lentilles ah, c'est avait parlé de ça. lentille araignée. waaw man lentille araignée lentille blanc lentille vert en fait le loolu yëpp moo ànd ak léegi ci xeetu maquillage yi nga xamante ni moom moo xew. c'est fort quand on parlait des xew léegi moom la ñu tuddee les lentilles 3 bon d' accord on découvre on découvre li nga indi euh, ca kanam ci wàllu euh, make up surtout euh, par rapport ak Halloween bi Aïssatou Paye Fall elle s'est maquillée en chatte Salima Salima <laughs> chat. oui <laughs> voilà donc tey Baye Cheikh maa ngi nuyu ñi tey dañuy waxtaanee euh, musique in Africa. oui yéen gis ngeen bakk na ay suuf ay faal bi <laughs> dañu am benn euh, événement bu mag bu ñuy amal fukki fan ak juróom-ñaar jàpp fukki fan ak juróom-ñett ci weeru novembre bi. Mhm. donc euh, Thomas Ayissi bi nga xamante ne bokk na si mbir mi dina ñëw waxtaanee ki ñu xam lépp lu mu ëmb daañu waxtaanee livre. Euh, agenda culturel comme tout le monde dit Bachir. jeex na ce sera donc pour euh, tout à l'heure ak Aïssatou Payval Mamadou Ndiaye. waaw na nga doxalee. éliminatoire mondial 2018 tout ça ainsi de suite on parlera de ça n'est-ce pas après oui, effectivement. maquillage effectivement comme ni ko euh, dans quelques jours Sénégal va affronter l'Afrique du Sud ci kanam nañ ci ñëw waxtaan surtout ak déclaration bi nga xam ne président fédération sénégalaise bu football wax na ko si conditions yi Lions yi fas yéene déplacé woo jógee Dakar dem ba sans problème benn avion direct lu nekk lu lu am solo tamit parce que trois waxtaan Alioune aussi yenn club yi xamante ni déjà commencé nañu ambiance

voilà Pape Cheikh nuyu nañu ñëpp waaw comme ni nga ko waxee rek mbir la moo xamante ne tey bokk na si loo xamante ne ñu bëri xalaatuñu ko parce que bu ñuy xalaat dañuy foog ne homme moo yor violence mais euh, ci ñoom li ñu bind waa presse Afrique euh, d'après ñoom 70 pour cent des hommes tués sont tués par leurs épouses donc dinañ ci ñëw ci kanam tuuti laaj si waa diaspora bi ñoom nan lañ ko gisee ak lan lañ ci xalaat ci kanam lay doon yow daal dinaa la xam sax. <laughs> tey dafa xam tey. tey bee ba ngeen doon jàng rogalaat. maa ngi gis loolu. si lii fort la. quelle dafa bizarre ah te da ngeen a ngeen waaj de da ngeen war a yor fête des la fête c'est vrai après ñu fëgg bureau yi loolu mën na ne. waaw fëgg bureau yan. bureau Youssouf. dara safu ko. pour dama dem rek. ñu bi mu joxe. ci gaal gi la ko fekkoon. bu sàmboog sër doo ko bàyyi ko jaaxal. kii lim dina ko fay fekk lépp baax na lépp baax na waaw. nekk nii lépp a ngi dox Pape tout va bien tout fonctionne bien Pape donc bu euh, gars yi euh, tasee seen ay sujet Pape. bu ñu paree ñëw ma jox leen ci gàndis. <laughs> waaw Pape xam nga boo nee Halloween. xam ni boo demee sonné ci kër yi dañ lay jox ay friandises. donc tey pourquoi pas ñu defar ay cookies au céréales ay ay recettes yoo xamante ni ay bonbon la rek bu ngeen paree bu fëgg bureau yi ma jox leen ay bonbon pap avec les beurre bocage ci kanam dinañ defar ay cookies yoo xamante ni céréales yi ñuy utiliser di ko ndékkee moom lañ koy defar sax voilà aywa oto ko mbëkk moom oto ko mbëkk gi gis nga dafa xool yàlla moom moom moom oto camion ko mbëkk seen bëñ bi sax war daale bëñ dafa dem kii tooñ na la ci choc bi c'est vrai que léegi léegi léegi maquillage yi dafa dafa dafa dafa dafa Sénégal ñu bëri ñu ngi koy def. on maquillage léegi dafa bare on parle de différents types de maquillage maquillage bi nga xamante ne consiste à rendre joli mais xeetu maquillage yi on peut dire que ce sont des maquillages artistiques donc dañuy jël benn thème choisir ko topp ci nit ki léegi comme on est en période d'Halloween et qui dit Halloween mooy une fête pour les morts on parle de da yoo xamante ne vraiment le but c'est de faire peur nit yi donc ku ci gën ragallu rek d'habitude moom la ñu wax moom mooy gagné citrouille bi mais origine bi je laisserai bijou bu ci kanamee moom ci gën a mu gën ci mën a fecci donc d'habitude quand on utilise ces types de maquillage là dafa am ay produits gën a spécial looy utiliser comme yenn yoo xamante ne on peut dire ay encre de Chine ay maquillage yoo xamante ne c'est des styles de pâte pour bien pouvoir dessiner léegi am na yenn yoo xamante ne parfois c'est moom ngay mën a utiliser pour ko par exemple habitude yi nga xamante ne moom la alfi am mm, am na ay xeetu sachet de sang yoo xamante ne aussi dañ koy euh, jaay au niveau euh, ci store yi moom ngi gis ñu taxal ni yenn yoo xamante ne sang artificiel la mais am na yeneen yoo xamante ne aussi c'est mélangé ça peut être sous forme de pompe nga xamante ne da ngay pomper rek mu couler wala mu am yoo xamante ne c'est vraiment le liquide à conserver boo paree nga defal liquide donc pour dindi ko aussi c'est très simple parce que il faut comme dañuy wax c'est des produits gras yu niin après pour l'enlever on te demande d'utiliser de l'huile lépp loo xamante ne moo di huile comme ça lépp luy niin dina ko dindi ci taamu nekkee daal donc maquillage daal léegi dafay. parce que parce que euh, euh, am na yu koy dindi. dafay mel ni mhm. réel ah. dafay mel ni mhm. réel moo nekk sa mhm. kanam. voilà dafa mel ni deret moo parce que comme boo koy def day ay effets spéciaux ngay utiliser donc moom laa leen doon lim sànq nu kanam gi gën a bizarre nag produit ngay utiliser da lay a déformer ba nga xamante ne tu que lii nit dëgg moom moo mel ni que c'est réel alors que le but n'est pas donc film yi film yi en bi moom la ñuy utiliser. voilà c'est ça moom la ñuy utiliser tu verras ñenn ñoo xamante ne ils prendront des Kleenex am na ñenn ñoo xam pour former la blessure y en a qui prendront comme par exemple ay Khadija ay silicone ngay jël. def ko malaxé ko def ci ba nga xamante ne comme ni ñu ko bëggee def ay crème yi maquillage la mm. ci kaw ba ci suuf amul lenn loo xamante ne du euh, lu réel lay doon donc tout est sous forme de maquillage juste pour dire que maquillage dafa évoluer yàgg na nag peut-être day soog a egg si Sénégal mm. mais maanaam dafa nekk métier boo xamante ne c'est noble et mm. tout le temps je dis que c'est un truc artistique pour nga mën a maquiller il faut vraiment nga am tuuti art ci yow benn talent boo ne day nekk ci yow décider effectivement voilà def ko mousse def ko mm-hmm. dëmm def ko tout xeet boo bëgg te même avant boobu sax boo seetee maquillage bi nga xamante ne mooy maquillage normal bu bu nit ki toogee nga xamante ne elle passe à l'antenne mm. sans mu def maquillage artistique bi lépp loo gis c'est des précisions mm-hmm. quand tu décides les sourcils di gis nit koo xamante ne ki kanamam dafa lakk nga maquiller ko ba nga xamante ne dafay transformé wu doo ko mm-hmm. xàmmeewaat di nga gis nit koo xamante ne comme ñi jàng alxuraan du ñu épiler mais la précision euh, xamante la personne te donne l'effet d'être euh, dafa dafa épilé te du loolu donc boo jógee ci loolu ñëw nag ci li nga xamante ne moom la ñuy wax le maquillage artistique wala le maquillage avec les effets spéciaux on a vu ça on a vu ça ci vidéo bu euh, Daara J Family euh, les images choc mm-hmm. Euh, réellement ay maquillage la ñu jël mu am deret comme si accident la bu nekk bi tout ça d'ailleurs euh, ci euh, début clip bi ñu ngi avertir nit ñi attention xawma lan xawma lan xawma lan je pense que c'est une occasion de regarder cette vidéo yëpp maquillage la et c'est c'est tendance comme dit Mado donc mhm. tey Halloween vous en verrez partout ñun tamit ci mouvance boobu la ñuy dox là comment ils ont fait vidéo bi ça montre nettement que on a beaucoup de d'artistes maquilleurs qui ah. sont là au Sénégal te bépp au fait dañ ko xeex parce que il faut se rendre à César suñu appartenance Suzanne bi Khady ñoo ñëwee dafa ñëwee jàngee ko Amérique ñëw mais biñ ko doon wax da ngay naan non lii c'est du n'importe quoi doo gis loo xamante ne nañ ko accepter quoi mais dafa nekk lenn loo xamante ne dafa réel te léeg-léeg comme par exemple ñoom daara ji li ñuy wax dafa am solo mais bu fekkee dunduloo vrai gis direct beeg yooyu yow doo mun a conscient ci lii ñii nga xamante ne li ñuy wax c'est tellement réel donc yow mi comprendre sax parole yi boo xoolee gis direct beeg yooyu di nga ne ah xaaral ma def attention kon beneen yoon parce que buñ ma mbëkkee wala damay dawal def safaan ba lii mun na ma ci fekk donc il faut que nit yi xam ne que c'est quelque chose boo xamante important nit yi war nañ ko foog on utilis des produits spéciaux ou spéciaux comme ni ma ko waxee woon donc ay sang yoo xamante ne kii la ay éponge ay latex xeetu produit boo mun ci xalaat rek euh, am na ci même ba ñu alfi nga xamante ne da ngay fóonee dafa jàll donc xeetu produit boo xamante ne dafa ci yi ay latex la yi ay euh, euh, produit la yoo xamante ne boo ko defee lu mu munti doon mais ça te donne un effet de réel alors que tel n'est pas le cas mais c'est surtout pour sensibiliser ak wan nit ci que le maquillage on peut en faire vraiment quelque chose de fantastique ou d'extraordinaire. On découvre dans mm. quelques minutes quelques techniques euh, maquillage Halloween ou maquillage bu raglu souvent euh, day nekk lu réel parce que 3D mm-hmm. lay nekk euh, ba tu as l'impression que li nga gis te kanamu nit bi lu réel la mais d'abord regardons cette vidéo pour dund un peu mouvance ou ah par rapport ak Halloween c'est une belle vidéo d'Aragny Family ñoom ñoo ko defoon pour sensibiliser par rapport aux accidents mais maquillage bien réalisé gis nga euh, euh, Macky Mass ci caméra bi dañ ngay dem te teg sa snap bi ah s'il te plaît kee musim bees la kii day foo man musuma ak gis lii ah te ka ca des moom sama xarit la on dara le caméraman de la nouvelle chaîne mënalu ma leen dara e eh, boobu musim bees la petit au lieu mu filmer mais fan yëpp day ràcc rek toog rek nga ne la ci fauteuil bi suñu doom yi ay paa la léegi te doom bi deux jours la am petit mel ni ko am voilà doom il y a doom ñaari fan la am. léegi mu am juróom dix ans doomu kat si te Ndeye Marie ko si te rek niroo na ak li daal lii c'est une très grande accusation. koo fa romb nurul raak. xale yu ndaw yi bul fàtte rubrique ma mu ma moom du jaay. dal dama tiit man sa dama tiit bi. loo ko xamal kii maa ko fekkoon si yéen si te Ndeye Marie ak jabu xale yi génn di ma seetaan si Pape Seye ñëw xale yi nu doon jaay lu leer laa la wax de <laughs> donc euh, c'était pour parler de cette fête Halloween ana sorcière bi gën a mag. ñu <laughs> taxaw Tabata. kii ana tuy ba soowu Michael Jackson bi. Tabata. tegal leen ko soow li moom du et c'est ça son vrai visage en réalité ah lii mooy vrai visage am waaw lii mooy lii mooy vrai bi vrai vrai visage bu bijou si waaw ah, xam nga ni ji bi waaw dëgg tura moom moom moom dëgg ah, en réalité waaw. Ah. allez euh, Mado donc de technique de euh, maquillage yi nga xamante ni. Euh, am na donc Nogaye que nous remercions. Euh, si elle peut euh, nous rejoindra certainement ci plateau bi pour qu'on en parle davantage parce que tey regardez derrière moi dëmm bi ah. my goodness. bale bi rek ko manqué de jëla bale saane tey. saane maa ne bigee. amal ko amal ko bale. oui Mado donc c'est ce sera tout par rapport ak euh, maquillage yi on illustre en même temps on a quelques mm-hmm. images. Euh, yu en même temps pendant que tu parles euh, de a mm-hmm. yi nga xamante ni moom maquillage. Halloween comme ni ma mm. la ko waxee woon rek sànq y a plusieurs techniques yoo xamante ne je pense que aussi comme ça ñu mun ci mën a gis gis nga xeet yi moom on mm. peut dire que c'est des maquillages artistiques. wala comme Halloween ça dépend parfois tu peux mun nga jël nuru euh, benn animal mun nga jël nuru une sorcière mun nga jël yow daal yow yaay xool nu mu lay neexee mais tout le temps comme je t'ai dit produit yi nga xamante moom la euh, utiliser bu fekkee ni style yu gën a ragalu la comme dans les films on peut dire que ce sont les maquillages comme style effets spéciaux parce que boobu il faut vraiment affaire yi euh, jox la un truc très naturel ba nga xamante ne daal mooy loolu yow sa jëmmu bopp voilà wute nag maquillage nga xamante ne moom la ñuy utiliser pour nous nous rendre belle et tout ça voilà euh, mhm. voilà donc intéressant merci euh, on on attend de voir kii di euh, maquillé wu ci télé bi moom fan lay mujjee ou bien nan lay mujjee on attend on attend de mmh. voir regardez véritable monstre voilà comme quoi tout est possible maintenant grâce ak maquillage yi alors euh, celle qui vous a maquillé et, et qui exact, va nous maquiller dans quelques voilà. minutes Exidex ah, ah. euh, Mamadou Ndiaye et mm -hmm. moi-même elle est bonjour mon amour ça va na nga enfin euh, félicitations ci liggéey bu rafet bi merci beaucoup ah reconnu par tout le monde ouais. ah. bu baax a baax. alors euh, euh, yombul. parce que ça c'est de l'art ouais c'est de l'art et mm. puis euh, yomb na parce que dama bëgg li may def. voilà soo bëggee looy def euh, en général du. du difficile passionné quoi. Mm-hmm. donc euh, voilà c'est c'est de la passion c'est mm-hmm. un métier et mm-hmm. puis voilà. loo jàng voilà. lu ma jàng la voilà mhm. c'est important euh, lu ma la te maa ngi koy jàngale parce que dama yore mhm. école. Ah. donc je suis en train de. Mhm. de former des jeunes aussi. ñoo xam ne mën nañ def maquillage yi wala beauté effets spéciaux. Halloween yëpp. ça se fait aujourd'hui voilà parce que ce bien aussi ñu xamal nit yi aussi maquillage du tëb rek ibbi sa benn boîte wala sa benn cantine rek taxaw di maquiller loo gis il faut nga dem nga jàng ko et tout ça parce que yow ku la xam nogee xam na ci wee nga euh, fekkoon baax li nga wax ni mooy sa passion danga ko bëgg déjà c'est la première base mais lan nga mën a digal xale yi nga xamante ne tamit tey dañu bëgg ñëw egsi comme yow doon def comme yow fi mu ne nii li nga def surtout ci wàllu maquillage parce que léegi ñu bare dañ ko xeeb dañu jël foo ne woon ni liggéey bu tuuti la non non non du liggéey bu tuuti parce que déjà euh, pour ma bi ma bi ma ñëwee pour maquiller leen dama xool ku nekk forme kanamam mhm. ak nu mu ñëwee ak teewam ak. Euh, euh, déjà parce que am na kanam yoo xamante ni jarul maquillage Halloween dañoo Halloweené <laughs> comme jëkkëru Alfie par exemple <laughs> moom boo romboon Ricardo moom du jaral maquillé tey moom mooy jël premier. tu sais tu sais pourquoi tu sais pourquoi dañuy faralante parce que mook mook Alfie seen jëkkër yi dañoo xeete. dañoo dem bay nekk ay tubaab te duñu tubaab <laughs> je connais des choses. Ah, j'en sais des choses. parce que c'est l'homme de ma vie et je voilà moo donc jëkkëru Alfi ak jëkkëru Nogoy dañoo dem bay tubaabe rek dañoo je blague beaucoup de talent beaucoup de talent en tout cas vous avez je sais que euh, Sénégal en dehors de euh, euh, xeetu euh, maquillage yi Halloween ou tout ce qui est affreux euh, da ngay def tam lu affreux wul parce que xale yu jigéen ñëpp dañuy ñëw ci yow. maquillage beauté au fait man je forme plus. je suis plus formatrice mm. euh, comme ni ma ko doon waxee sànq dama yore école de formation bu tudd Fantasika mm. donc damay former ay euh, jeunes donc su ma leen former ba pare en général quand on me demande des maquillages beauté je préfère les mettre elles en avant ou eux parce que je fais le maquillage avec As ki euh, qui est très talentueux c'est un garçon et j'ai insisté à ce que mu ñëw ak man parce que euh, dafa am xale yu góor yu bëri yoo xam ne dañuy ragal a dugg si maquillage mm-hmm, mm-hmm. parce que dañ naan affaire yu jigéen la wala des trucs comme ça su ma gisee non je parle de la réalité mais oui, il faut oui. qu'on qu'on puisse changer un peu c'est des clichés on puisse changer les, mm-hmm. il est très très talentueux mm Euh, il fait un travail très propre moom sax moom moo maquillé intégralement Mado j'ai rien touché du tout euh, donc dama bëggoon euh, moom à travers lui que nit ñi nga xam ne am nañ talent pour def lii ñu bañ a ragal surtout góor ñi mhm. parce que c'est des choses voilà man su bi ma demee Paris pour jàng benn si sama formateur yi ay góor la woon mhm. et euh, il était super bien et booy xool à l'international aussi mm-hmm. maquilleurs yu maquilleurs yu mag yi c'est en général des hommes donc il faut pas que les gens aient, peur de faire de mm-hmm. faire ce métier mm-hmm. que mu nekk maquillage beauté pour ay cérémonie ay mariage que mu nekk Halloween wala effets spéciaux pour ay films des trucs comme ça tout peut se faire maintenant euh, mën nañ def lépp ku nekk mën na def lépp mais il des choses yoo xam ne il faut pas rentrer dedans c'est-à-dire que Euh, par exemple sànq ñu ngi may laaj euh, lentille du def nii wala du def naa am na lentille yu baax am na lentille yu bon faut pas prendre tout ouais. euh, produit aussi dafa am ay produits spéciaux yoo xam ne pour maquillage Halloween la mhm. après yaa a technique yoo xam ne on peut utiliser juste des produits alimentaires mhm. comme ay lem ay kafe ay euh, jus mhm. par exemple sama doom bi bu mu bu mu gisee maquillage bi ma njëkk def elle m'a demandé je lui dis c'est du jus de bissap elle me ah, donc ça peut se faire avec du jus de bissap, mm -hmm. ça peut se faire avec d'autres produits alimentaires mm-hmm. quand on n'a pas les produits professionnels mm-hmm. parce que c'est important de le dire que kanam dafa mm-hmm. dafa dafa dafa dafa dafa dafa sensible il faut pas y mettre tout moo tax loo jàngul loo jàngul lay njëkk a gis loo nekkul kanam lay njëkk a loo ah. nekkul professionnel euh, du baax y a des produits yu yàq kanam exactement voilà y a des y a des y a des y a des gens yoo xamante ni seen kanam yàqu na euh, par rapport ak yi ñu def euh, yi ñu def euh, ci seen ay maquillage et c'est pas bon merci en tout cas Ben, c'est un plaisir. Oui. C'est toujours un plaisir. Euh, euh, parce que non, je voulais la remercier parce que elle et moi on se connaît bu dara dara avant Ongle avant dara boobu mm-hmm. nekk guñu dara ay xale yu ndaw la ñu woon. Euh, je l'ai connu chez chez mon cousin te ba léegi j'ai pas regretté. Mm-hmm. Et je tiens à apporter un témoignage parce que c'est une véritable battante. Elle est partie de mm-hmm. rien dafa démissionner fi mu nekkoon partie de rien pour gëm boppam moo tax mu arrivé fi mu nekk fii da doon Paris dañ fa doon passé mu nekk. Euh, en stage di jàng. Ah nga naan kii bi xale yi demuñu Paris rek seen morom. bàyyi comprendre nga. xale yi ñoo bëgg dem verser rek yow. defee ko sax. donc euh, juste apporter ce témoignage là et di ko gën a yokk aussi courage. Mm. parce que et la ouvert sa chaîne de Ongle munoon na ci tax taxaw te jëkkëram tamit da ko ci dimbali. munoon mm-hmm. na ci taxaw ne fa la yem mais là <laughs> dafa dafa ubbi leneen. te euh, franchement plein succès macha allah. te encore euh, beaucoup d' encouragement. Marie Bay du ma la. Eh! jaajëf waay. en tout cas merci. franchement c' est un plaisir. on oh, oh, oh, on est là pour vous. voilà lu ngeen kontaan lu ko parce que faire ce que j'aime faire ce que As aime. Mhm. l'as du make-up je l'appelle. Euh, c'est toujours un plaisir. voilà retrouvez donc retrouvez retrouvez Nogay ndeysaan nii la ñu nekkee ak man. retrouver xamuñu ni balaa ngay dem di nga joxe euh, contact c'est sûr mhm. mais bon retrouver donc euh, Nogay fi nga xamante ni mooy euh, Angle Mania c'est notre ami à tous moom parce que mën na lu muy def et puis ñu bëri ci wàllu maquillage xam nañ ni bokk na ci ñi ci gën ci njëkk a nekk professionnel euh, fii ci Sénégal on nous parle toujours de Khady Khady a aussi mm. Nogaye y a d'autres filles mm. euh, qui ont beaucoup de beaucoup talent bi ngeen di def ay master euh, defe naa mu ngi bëgg a yàgg xëj na mm. léegi la télé bëri ak rajo ba ku nekk foog ni yàgg na fii wala bëri na fi bëriwu fi woon yéen yéen a ko njëkk def donc loolu ñu ngi leen ci félicité ku dem ci route des di fekk leen fa parce que jigéen ñaa ngi fay ñëw pour ay we mais pour d'autres maquillages surtout tey ak Halloween bi effectivement et surtout euh, élèves yi ñoom ñooy gën a def maquillage mhm. euh, mooy école bi may wax Fantasika Nelson Beauty Academy mhm. foofu la ñuy gën a defee maquillage Halloween yi donc ku bëgg def maquillage Halloween euh, wala sax nga jàng ko parce que looloo ma gën a intéressé mm. mun ngeen woote au 827 14 14 827 14 14 on est sur la VDN mm. juste en face de Ongle Mania bu VDN bi donc c'est c'est là-bas ku bëgg ñëw rek super kon ma abal la gars yi kenn par kenn waaw waaw. d'accord Excidex Actual Tour Aïcha on maquille Excidex on maquille Mamadou Ndiaye tu veux tu veux te maquiller wala journaliste nga du ma doo maquiller da ngay bañ rédaction bi wax la.